problème mu ndox bi nga xam ni am na Koungheul ak problème mu courant bi ndax boo seetloo euh, Koungheul y a de cela ñu ngi bëgg a dugg ci neuvième année wala dixième année bi nga xamee ne nii euh, amoon nañ groupe boo xam ne moo fi nekkoon ñu jël groupe bi jëlee ko fi yóbbu ko Tamba bàyyi ko fa ñun ñu indil ñu courant continué depuis boobu ba léegi ñu ñun amatuñ courant boo xam ne dafa stable ci coupé lañ dëkk suba ak ngoon loolu moom amul lenn loo xam ne instant yi nit ñu nekk bi dëkk bi am na luñ ci loolu lañ dëkkee suba ngoon parce que courant bi dafay coupé suba ak ngoon amul benn heure boo xam ne nii dañ ko toog courant du coupé surtout bu ñu nekkee ci nawet bi nawet bi moom bu xasee ba ko dugg mooy ne ñun courant par nañ ci par nañ ci courant bi te loolu aussi dafa nekk loo xam ne nii lu dafa doy waar te mënuñoo nekk ci biir dëkk bi département bu nekk toll ni Koungheul ak li ko wër yëpp ñu mën a nekk fii am problème courant dafay doy waar nous sommes la jeunesse de Koungheul ñun ñoo fay ay doomu Koungheul lañ fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo suñuy waajur ñoo fi nekk amaana ñu si bëri ñoo xam ne nekkuñ fi léegi dem nañ ñii ñi ngi fii ñi ngi ci diaspora bi mais ñëpp ànd nañ ci combat bi ñoo fi nekk suñuy papa suñuy yaay suñuy lépp loo xam ne instant yi lu développé Koungheul la dañ ci dem ba jeex tàkk beneen bi sopp mooy li nga xam ne instant yi moom lañ gën a di déplorer mooy le fait que courant bi heure bu coupé rek ndox mi coupé ñun loolu lañ mën a comprendre parce que mënoo nekk ci dëkk boo xam ne ni département de Koungheul lan moo tax courant bi bu coupé ndox mi coupé loolu lañu dañuy bëgg a question bi ñuy laaj mooy lan moo tax bu courant bi coupé ndox mi coupé e ci ci ci Senelec ba ba ba mu war a coupé wala ñoom am nañ groupe boo xam ne nii instant yi nii war na mën a doxal bu courant bi coupé ñoom ñu doxal ba ba nit ñi am qualité ndox ñu ngi fay facture te facture yi ni mu ñëwee lay a seere ndox mi qualité ndox mi kenn xamul qualité ndox bi ñu naan da gis ndox boo xam ne man bi ma fi ñëwee léegi def si dëkk bi presque 96 heures maa ngi koy def si dëkk mais suñu robinet bi buñ ko ubbé bala nga mëna duuy dara ci kër gi lo xamné pour nga sangoo da ngay dem di sangu ci suuf moy nek ci yaram parce que ndox bu ñëwee day ànd ak suuf faw ñu ubbi ko ba nga xamné dem nañ ba 30 mille 40 mille pour nga mëna am ndox bu qualité bo xamné war nga ko mëna a sangoo waxuma ndox bu ñu naan mais ndox bu ngay sangoo rek pour nga mëna ko am donc loolu dañu dafa nek lo xamné ne lu ñu déploré la di arrêté la dañuy alerter alerte bi ñuy def nak moy ñu fexé ba ñom ñu seen bop ñi nga xamné ne ñoo représenté état fi ñu dégg li ñi wax li dem ba egg fo xamné ni fofu la wara yegg suñu toogee nak lo xamné ni tok nañ par exemple mu continuer wat def ni ñu gis ne courant bi mi ngi continuer couper ni mu ngi doon couper ndox bi amul qualité te mi ngi continuer di couper ni mu doon couper te utuñ ci benn solution dinañ indiwaat beneen jéego boo xam ne moom lay ñëw.